kàddu yi gërëm la euh, ni ngeen ko xamee euh, ci ay weer ci ginnaaw sumboon nañ liggéey bi mbokk yépp jàpp ci mu nekkoon loo xam ni dañ ko lancé woon dublu ci taxawal projet bu am solo bi nga xam ni ñëpp a ngi koy xaar ndax dayo ak am solo média ci jamono bi ñuy nga xam ne moom la ñuy dund moment bi ñuy dund actuellement ci kaw loolu euh, ñu nekk ñoo xam ne lancé woon nañ ko mbokk yépp jàpp ci te xam ngeen ne jàppalante ci lislaam taawun loolu suñu borom moo ko digle jàppalante bi nag buñ ko xoolee ci ay façon yu bari la nit kii mën na ñëw jàppal ci mbir ngir xalaatam parce que xalaat la am am na koo xam ne mën na ñëw jàpp ci ak dooleem parce que doole la am kattanam physique am koo xam ne mën na ñëw jàpp ci ak alalam wax dëgg yàlla ñett yëpp feeñ na ci mbir mi am na ñoo xam ne participer nañ ak seen xalaat joxe ay xalaat orienté am ñoo xam ne participer nañ ak seen kattan te xaaruñu ci dara am ñoo xam ne joxe nañ sax seen temps am ñoo xam ne joxe nañ seen alal ñu ñëpp dañ leen di ñaanal borom bi subhaanahu wa defal dafa leen tawfiq parce que ni ngeen ko xamee ci mandargay texe comme ni ko borom xam-xam mag di wax Ibnul Qayyim ci téeréem bi ñu wax ko fawaid nee na mandargay texe ñett la mooy boo amee xéewal nga yëg ne lii xéewal la nga sant borom xéewal gi su dee suñu borom la nga sant ko su dee da koo jaarale ci ab jaam mu doon sabab bi nga sant borom bi sant jaam ba loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ne man sana ilaykum maarufan leen defal lu baax na ngeen ko fay fa in lam tajidu ma tukaafi'uhu fad'u Allah lah su ngeen amul lu ngeen ko fay ñaanal leen ko yalla kon ñu ngi ñaanal mbokk yépp di ñaan borom bi mo barkel seen am-am barkel seen xalaat barkel seen kàttan barkel li nga xamne moy mooy seeni waxtu ñepp ñi nga xamne japp nañ ci ci ñent yoy mu tudd mu ci alal ci waxtu ci kàttan ak ci li nga xamne moy ci xalaat parce que yoy lañ soxla won te wax deug yalla wote l'islam bi sa sunne dafa soxla taawun manam solidarité yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy gàddaay bu Abubakar indiwutoon waruwaay ñu génn pour dem doon na am peut-être tuuti jafe-jafe pour pour pour déplacer wu pour dem waaye Abubakar moom moo dem indi waruwaay jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ngeen ko xamee it euh, média dafa am solo ba tax na média bu mel nii ah néew ñu ne amul ci terrain bi de waaye doxalin bi ñu bëgg am wala bi ñu bëgg a doxal ak ligne bi ñu bëgg a gis nañ ne dana nekk loo xam ne lu bees la ci terrain bi te buñ démarré ñëpp daañ ko yëpp Euh, loolu moo tax ñu nekk ñoo xam ne teg nañ ligne bi nga xam ne ci lañ bëgg a demee euh, li nga xam ne mooy média ci lislaam ni mu amoo solo mooy euh, dafa yàgg depuis fajru daaw ni ko boroom xam-xam yi di waxee maanaam mook daawa bi ñoo ànd yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom xam-xam yi wax nañ ne bi borom bi wàccee ci moom wa anzir ashirataka al aqrabin demal nga waar sa mbokk yi la gën a jege balaa ngay waari keneen yonent bi alayhi salaam ni ko Abu Hurayra waxee ak Anas Abu Saïd al Khudri mu nekk xadis bu wér muslim solo ko abu daawud ak tabaraani nee na dafa yëg saida ala safa dafa yëg ci montagne yu safa bi nga xam ne tey booy aj màkk wala ngay omra muy safa ak marwa montagne bu mag la woon nee na fa la yëg fa naadaa quraysh nee na moo waa quraysh booba moyen boobu moo am ci communication moo yëg ci montagne taxaw di wax booba jamono fa la tolloon yonente bi alayhi salatu wasallam def moo yëg ci kaw montagne woote ba waa quraysh wuyu ko banu abdi manaaf banu abdul mutalib ku nekk giir gu nekk mu ñëw wax wax ak ci yéen ne leen yalla mo yoni yonent la ci yeen musal len sen bop ci safara wax ak doom Fatima ne ko euh, nekkal ci li ma la wo nga yegg ni ma la jeriñ dara fa yalla lu dul yow ya ko defal sa bop kon nga gis ni euh, euh, lu lu daawa bi soxla la manam lu lislaam soxla la luy and ak lislaam la tay fami ag ci beut wala fami ag. ni mën ko deglu leneen mënu fa ag loolu motax la dafa nek aussi lo xamne darura la manam lu essentiel la lu ta ñak la lo xamne soxla nañ ko ba tax na mbokk yi ñu ngi di gërëm wax dëgg yàlla li ñu sumboon metti na waaye ñu ngi jëm ci lu ko gën a métti li ñu sumboon metti na ci ne euh, expérience la ci taxawal média boo xam ni wax dëgg yàlla amaana su ñëwee dina indi changement bu bees dina indi doxalin bu bees waaye indi njëriñ boo xam ni bu palpable boo xam ni bu malmuus ñëpp koy laal ñëpp ham. koy xam doon si kisàkka ci jàngale parce que tey média fi mu toll nit ñi dañoo war yëg ne média war nañ ci mën a war naa participer ci développement économique am réew war naa participer ci développement social ci am réew dafa war a nekk ligne boo xam ni day orienté jeunes yi société bi orienté ndaw ñi orienté jigéen ñi waaye problème yi société bi am ñuy am foo xam ne bu ñu fa dékkee seen i nopp wala teg fa seen i bët su boobaa loola danañ ci gis solution danañ ci gis saafara parce que nit ñi loolu la ñuy xaar ci média ba tax na ligne bi ñu jël moom mooy loolu mooy yéen ñi ci seen diine nit mën a toog këram di jàng diineem yéen nañu ci wàllu societé am na yuy xew ci wàllu jamono mais diine noppiwu ci da cee wax loola il faut ñu ciy gindi ñi ci wàllu diine wax rek li wax wax rek diine wax te yem fa léegi nag doomu aadama yi ay borom xel lañ kenn ku nekk xam nga su ko defee yooyu foog ci édifier nit bu loolu dafay mel ni diine dafa am ay yoo xam ne tabu la wala da cee noppi te déedéet diine dafa ñëw pour régler problème doomu aadama yi suñu borom dafa wàccee diine pour régler jafe-jafe yi nit ñi yi ñuy dund ci kaw suuf mu indi ci ay solution loolu tax yàlla doon wàcc alxuraan détail par détail jamono yonent bi alayhi salaatu salaam lu gaa ñu dund ci jafe-jafe rek yàlla wàccee lu ko réglé kon lépp ci diine lu mel noonu nag foog ñu xamal nit nii am na ci diine te loolu lu koy waral mooy média bu mel nii comme Islam TV kon mbokk yi incha allahu taala ñu ngi lancé waat beneen appel ginnaaw bi ñu taxawalee lu jafe waaye lu gën a jafe di ñu xaar lu gën a jafe li mooy lan mooy média xam ngeen ne taxawal ko rek yemul foofu waaye boo taxawalee média dafa am foo bëgg dem dafa am foo déparé am foo bëgg a dem am looy visé am loo fekk ci terrain bi. bëgg am ab différence wala ab ràññeet la boo xam ni wax dëgg yàlla sa doxalin war na ko feeñal loolu nag ci li muy mën a amee mooy mbokk yi ni ñu defoon ci commencement bi soxlawaat nañ xalaat yi soxlawaat nañ kàttan yi yi soxlawaat nañ aussi li nga xam ne mooy waxtu yi soxlawaat nañ li nga xam ne mooy ni ñu jàpp ci aussi ci li nga xam ne mooy financièrement jàpp ci seen alal te ku ci dugal sa alal it ci yoonu yàlla nga ko dugal réewum perdoo ko compte la boo xam ne suñu borom dala koy dencal dala koy fay loo def ci yoon yàlla suñu borom gis na ko xam na ko suñu borom dina la ko delloo insha allahu taala kon ñu ngi woo mbokk yépp ci compte banque yi numéro compte banque yi ñu joxe woon numéro orange money yi ñu joxe yooya ak ña xam ne ñoo ca nekkoon insha allahu taala loolu lu fa jaar rek dina agsi bi isnillahi taala wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa